rafetlu suñu ànd ak yéen ci biir suñu gal 24 mbokk yi asalaamualeykum dal leen ak jàmm ci bile jataayu xibaar ñu ànd ak jukki leen ponk yi ci gën a fës doore ko kum daje ci assemblée nationale commission ad bi fas yéene euh, daje ngir waxtaanee euh, ci lu ñeel mbalaanum kiiraayum ñaari député yi lee di bu Hadji euh, bi Biaye ak Mamadou Sall danañ ko gën a yaatal ci biir xibaar yi buñ ci noppee dañ ci toftal kaddu yi Abdoulaye Baldé jëmale ko ci njiitum réewum Sénégal président Macky Sall ci li nga xam ne moom moo di ay décision yu président Macky Sall def ca Ziguinchor dal di tànn nag kile di Benoît Sambou ak Seydou Sané li waral kile di Abdoulaye balde dal di jël ay maire doom ngir jóge ca Benno Bokk Yaakaar Marème li di ab ñu ràññeekoo ci major ak jor ñaari weer ci ginnaaw lañu ko jëloon soxna mu doon ñetteelu sëyam moom nag daal di nay divorcé ñu jeexale li gën a fës ak tolluwaay mbas mi ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé et de l' action sociale lamal tey ci àllarba yamook ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ki weeru octobre mbokki xarit li may di fës ci ponk yi ngeen taxir lu bàkk bi jàll ñu fam fàcc ko asalaamaaleykum mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyoo nañu leen ko junjee woon ci boppu xibaar yi noonu la ñu koy dooree Faram Facce ak coowal ñaari député yi ñuy tudd ci wàllum passeport euh, diplomatique te boobaak léegi mën nañoo jàpp ne def na weer ak lu ko toftal te ñu doon xaar nag ñu dal di ci def li nga xam ne moom di fast track bi ñu ci doon xaar euh, ba tax na daal li nga xam ne moo di commission ad hoc bi ajuma bi ñu dëgmal fas yéene nañoo auditionné li nga xam ne moo di ñaari député yooyu ñuy tudd ci wàllum trafic. passeport diplomatique di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ñu àddu wax ci leneen élection locale 2022 kii la di Amadou Ba moom dal dinay fay caution bu Benno Bokk Yaakaar te ci poosam la ko jëlee moom Amadou Ba moom nag président Macky Sall dal dina koy tàbb mu nekk coordonnateur national bu Benno Bokk Yaakaar ñu àddu wax ci leneen ba des ci langue politique Abdoulaye Baldé euh, moom dal dinay quitté parti bile di euh, Benno Bokk Yaakaar li ko waral mu di kadduy yi président Macky Sall jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di ña war a teewal Benno Bokk Yaakaar ca Ziguinchor ñu daal di fay tànn nag kile di Benoît Samb ak Seydou Sané looloo waral kile di Abdoulaye Baldé ne président Macky Sall daf ko wor ba tax na dal mu dal di jël ay dëbësam ngir fas yéene bàyyi ca Benno Bokk Yaakaar ñenn ñi di sampaab laaj ndax kile di Abdoulaye Baldé dafay dem fekk ji Pastef bu Ousmane Sonko am déet ci loolu la coow la ñuy des ginnaaw bu ñenn ci sénégalais yi sampaab laaj ndax Abdoulaye Baldé dafay dem fekkee loolu am na li nga xam ne moom moo di euh, Casamance kenn du ko moom ku dul Ousmane Sonko ndax ñaar ñooñu dañoo am doole te bu ñu boolee seeni doole li nga xam ne moom moo di Benoît Samb ak Seydou Sané dañuy ñàkk ca mairie bu Ziguinchor ñu àddu wax ci leneen. Alioune Sall digganteem ak kile di Seydina Fall Bougazeli jàmm mujjee na ca dellu siwaat ginnaaw ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk yaa ngi toogoon ci sa ruq ci ay weer wala ay at yoo xam ne rek jàmm doxul woon seen diggante ginnaaw si la ñu gis nag ki nga xam ne moo di Seydina Fall Bougazeli génn amal ab communiqué di wax ne que euh, parent wam ñoo ko dal di ñaan ngir mu bàyyiwaat alin Sall dem postulé wu ngir jël mairie bu Guédiawaye ginnaaw nag ñoom ñaar ñëpp daal dinañuy amaat jàmm gis nañ ne que moom Alioune Sall daal dina amalam ndaje yëkkati fa kàddu cant ak ngërëm jëmale ko ci Seydina Fall Bougazelli ngir nag mu gunge ko ci élection locale yi ñu dëkkmal ndax nee na bu fekkee rek moom Seydina Fall Bougazelli nekkul ci wetam dafay am ti tiitaange ak njàqare ndaxte ku ngànk fi nga xam ne moo di localité bu Guédiawaye la te bu fekkee mu ngi ci wetam am na yaakaar ne dina gagné li nga xam ne moom moo di tey des ci langu politique maam goo Diazaka moom dal dinay déposé ab caution ngir nag jël mairie bu Rufisque ni ki démb la dal di déposé boobule question mu doon itam ab laaj boo xam ne askan wi samp nañu ko jëmale ko ci woykat bi la di maam Gor Diazaka ginnaaw way na fi ba bàyyi te kenn xamu ko wala mënul woon dajale sax lu tolloog téeméeri nit ci ab saal bu demee ba ne dafa bëgg a jël mairie bu Rufisque ana lan la fi liggéey ba mën natt boppam jëmale ko ci langug politique gi xam Mbaye yàq na lu mel ni xeme président Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko sekk dem na bay wax ne ñi sekk président Macky Sall dara ñoru leen lu dul seen bopp te la ñuy wax yépp dara amu ci rawatina nag ki nga xam ne moom moo di Mahmoud Saleh nee na ko wax ji nga xam ne moom la wax président Macky wax loo ko ko te lépp dañu ko wax ci seen coobarey bopp ak li nga xam ne moom moo di seen intérêt personnel ñu àddu wax ci leneen lu ñeel wi lu doy war ñaari pompis yu taal benn estation ca Potou euh, digganteem ak Louga nga toll ci fanweeri kilomètre ak ñeenti li waral ñu taal station boobu nag mooy dañu fa sàcc lu tollook juróom ñeenti téeméeri litre carburant ñu doon bañ nag yëf ya feeñ ñu dal di koy nëbbu ngir taal station boo bëggoon wax rek ne dafa tàkk ngir ñu mën a masquer li nga xam ne moom moo di sàcc googu waaye yoon dal la leen di teg loxo ba ni ki démb ci talaata ji lañu leen defere ñu dem ca Touba Mbacké lu doy waar lu fa xew ñaari taalibe yu doon xeex ba kenn ki mujjee jam paaka moroom mi mu faatu ci saasi lool mu ngi amee ci euh, quartier HLM ba nekk ca euh, Touba Mbacké ki nga xam ne nag moom la ñu faat di wuyu ci turu S Dieng amoon juróom ñeenti euh, at moom ak xale bi nga xam ne moom la doon fawandool coow moo dox seen diggante ba mu jël paaka ba dal di ko koy jam ba mu ñàkk ci bakkanam ci saase ñu def ab gëstu bu yaatu jëmale ko ci li nga xam ne moom la ñuy nemmeeku fan yi ca Touba Mbacké ci lu matul weer rekk wala ñaari weer ci ab gëstu bi nga xam ne fësal nañu ko ca Touba nemmeeku nañu fa ñeenti victime yu fa am yu mel ni ak fatante ak ay jamante ay paaka Mariam lii di ab actrice ci Madior ak Dior ñu gën ko xam ci li nga xam ne moom moo di Naar Diop moom dafa mujjee divorcé waat ginnaaw mariage bi nga xam ne amal na ko ñaari weer ci ginnaaw moom ak Gambien bi nga xam ne moo ko takkoon te ñu dugaloon ci xaalis bu baree bari ci ab xayma bu ñu ko defee ak la ñu jotoon fësal mu toll ci fukki million dem na ba doon influencé xale yi jigéen yi ci réewum Sénégal ñu sëyi waaye tam seen vision euh, tegu ci Gambien yi moom Mariam li moomu ñu gën ko xam ci Naar Diop moo divorcé euh, bi moo doon ñetteelu divorce boo xam ne moom daal dina ci indi ay. leeral alxayri jip na jëm ci kewe bu ñu ràññee moom itam ci série Madior ak Dior ak yeneen série yi nga xam ne Pikini production lu ci mel ni Grand tamoor ak lu ni mel euh, moom kewe moomu daal dinañu koy jël ab ñaareel ñu koy ñaanal heureux euh, ménage ñu wax ci suñu làmb ak kàddu yu Mouhamed Ndaw Tyson jëmale ko ci promoteur bile di Gaston Mbengue ginnaaw bu ñu doon ngénte eh, kër Gaston Mbengue ab sëtam ni ki eh, démb ci eh, talaata ji moom Mouhamed Ndao Tyson nag yëkkati na kàddu cant ak ngërëm jëmale ko ci promoteur bi li di Gaston Mbengue waaye itam position bi nga xam ne moom la Gaston taxawee lu mu rafetlu la ci atum 1995 ca ba muy tàmbali bëri ak léegi ba tey seen diggante ñoom ñaar dara ñaawu ci waaye itam nee na bu demee ba làmb toll fii lu ñu war a gërëme ko kii la di Gaston Mbengue ndax ci atum 1992 ba léegi moom Gaston mu ngi ci làmb ji te bu ñu demee way wax itam làmb tey ki nga xam ne moom moo di Mouhamed Ndao Tyson di moom Alioune Sarr ak kii la gason Gaston Mbengue ñoo indi làmb fi ak si tey ñu jeexale xibaar yi ak tolluwaay mbas mi ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé de l'action sociale amal tey ci àllarba yemook ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru octobre ci tes yuñ jot a def juróomi nit ñoo dellu siwaat am doomu jàngoro bi benn nit ñàkkul kanam ñetti nit ci ñu entré woon ci hôpitaux yi wér nañ ba ñibbi seeni kër ñaari nit nekk ci sauvetage tax ñiy sàmmonteeg wér gu yaramu doomu aadama yi di ci la koog ministère de la santé et de l'action sociale di sàkku ci askan wi ñu gën a wëyal digle yi te bàyyi tere yi bokk na ci takk masque la zel respecté dandante bi te bàyyi dajaloo bi mbokk yi lii lañu leen doon dëgtal ci ay xibaar fii la ñu koy ndax keppe dañuy ñaan ngeen di woye suñuy programme di leen ñaanal fanaanum jàmm te leen di jox di daje ëllëg incha allah.